baax a baax fii ñu taxaw di wax nii vingt ci kanam histoire dina ko bind da a dugg ci histoire Sénégal te yëgoo leen ko yéen waa département Mbacké da ngeen dugg ci histoire Sénégal te yëgoo leen ko laaj leen ma nan ngeen duggee ci histoire laaj leen ma nan ngeen duggee ci histoire gor gu ñuy wax président Ousmane Sonko bi mu yëkkatee projet yéen yéen a ci joxe seen bakkan pour projet bi taxaw ñaata doomi département Mbacké ñoo dem kaso ngir projet bii ñaata doomi département Mbacké ñoo dugu dugg kaso ngir projet bi 1960 boulevard Ndoyeen bii ñu taxaw benn leader politique ñi mu fay def meeting defee naa kii que ce soit ku ñem na nga def kon yéen mars au ma sikki sàkk ne fal président Bassirou Diomaye Faye au ma ci sikki sàkk premier tour premier tour premier tour premier tour mu des mu des suba suba Touba mooy président Bassirou Diomaye Faye du est-ce que yéen ñi taxaw ngeen Touba man Cheikh Thioro laa tudd sant Mbacke di sant Serigne Touba ànd ak président Bassirou Diomaye Serigne Assane doo sëtub Serigne Fall la ànd ak président Bassirou Diomaye kon taxaw kan moo ne gën a Serigne Touba kon ñun ay lañ murit lañ bokk Pastef kon président Bassirou Diomaye Faye bi muy ñëw Mbacke yéeneem numéro un mooy siyaare la xalif général de murit moo tax ma woo ma téléphone ne ma lijjanti ba bu ma ñëwee ma siyaare ji ko far yàlla dogal Cheikh Mahamadul Muntaxa fatu moo tax dem fa kon waxkat yi bu subaa boo ni bind boole leen ci loolu yéen waa Mbacke est-ce sàcc nga Amadou Ba sàcc la ku ànd ak moom sàcc nga boo leen bëggee changement moo tax mu tànnal ñu borom loxo yu set yi yu ak kon bu ci projet bi ku ci man sa morom nah, di nga raw ba faw kon yéen waa Mbàkke raw yéen ba faw di rendre hommage jàmbaar yi nga xamante ñoo ànd ak ñun depuis campagne bi démarré ba léegi ndax seize communes yi nekk ci département Mbàkke coalition Diomaye wër nañ ko ci huit jours huit jours kon fii ku taxaw ne coalition dina